fi réew mi toll. Ndeye Fatima suñ ko waxee xel yu bari dinañ am ci ku mu dem kooku nag nekkoon Miss mille 2020 Miss Sénégal boobu jamono ji daal di nekk ci ay tolof tolof ay jafe-jafe yu tar ndax nee na moom dafa wann lor te xamul kan moo ko teg gannaaw nag bañ ko sàkkoo daal di koy violer lu ni mel moom moo indi jafe-jafe yi nga xam ne jamono ji loolu lay dund fii nii si réew mi. jamono ji nag daanaka ñëpp moom la ñuy waxtaanee mu nekk ci ay jafe-jafe yoo xam ne dañoo jot a ñi nga xam ne nag ñoom ñooy comité d'organisation bi comme niñ koy waxee ay du yem ci bopp borom ñi nga xam ne nag ñoom ñooy comité d'organisation yi ay partenaire tàmbalee génn rawatina ñi nga xam ne ñoom ñooy waa CFAO ñoom daal dinañ nangu oto marque Peugeot yi nga xam ne ñoom lañ joxoon ñi nga xam ne nag ñoom ñooy comité d'organisation boobu gannaaw ba mu amee ay histoire tuumalanteeg viol yoo xam ne moom moo daal di dugg ci li nga xam ne moom mooy Miss Sénégal la fi réew mi toll. Barthélemy ne moom dafa gis ne opération xoqatal lañ koy teg gannaaw bi mu génnee bari ki démb ne moom dafay doxantu ci mbedd Ndakaaru yi ñi nga xam ne nag ñoom ñooy waa police daal di koy teg loxo ñu yóbboon ko sax ca police bu jëppal ca bu jënteel ba ca lañ ko mujj bàyyi mu def conférence de presse mais li bés ci mbir ñi moom nee na dina wuy ji su keroogee benn fan ci weeru décembre bi ñu dëgmal. ak mooy Diouf jotoon naa def ab doxantu ci mbedd ndakaaru yi dale ko yoof ba dem ba fi nga xam ne nag moom mooy belleer Amadou Ba tamit daal di li ni mel ndax démb rek moo ci topp mu ngi ne ci mbedd ndakaaru yi kii di Cheikh Bakhoum donc nag ñu gis ne deux poids deux mesures moom moo am ci mbir mi ak ak fi mi toll jamono ji lépp lu adversaire def pour mën daan morom rek dina ko def ngir daal di falu jaa ngeen jëf